ici nekkoon deuxième adjoint au maire yàlla jële ko fii si diggante bi daaw ñoo fi nekkandoo woon di si fête bi moom lañ ko jël yëpp tuddeewaat ko ko delloo ko ko famille politique am yëpp ñëw teew fii mais également famille bi mbokkal deret notamment sa sœur Binta Si ak ni ñu àndal ñëw fekke ko ak ñun ñu koy ñaanal yàlla mu xaare ko aljana ak yéene yi mu amoon si jaawoon yëpp yàlla mottali ko waaye nag tey jii suñu mbégte dafa gën a rëy ndax xëy na maire moom bu lu ma ko bokkee nag ak ñii taxawal muy euh, madame le ministre Seynabou Gaye Touré présidente du conseil départemental le ministre notre frère Abdou Ndéné Sall ici présent le député Cheikh Diane Diouf ak li ñu seqal langue politique bu Tivaouane bi yëpp ñu ñëw bokk ko loolu day nekk day yokk suñu kontaan daf ñuy gën a sawarloo tax de xëy na ñun ñëpp ñoo bokk yéene si Tivaouane suñu yàlla mayee na ñu àndandoo ko ku nekk ci mën a uti mu indi ko uti ko indi ko dina gën a yomb dina gën a baax ci population tivaouanoise yi Tivaouane nag yéene nañ ko lépp dëgg la biñ fiy ñëw fekk ñu woon ñu mën a jouer ci match nocturne yàlla dimbali ci diir bu gàtt ñu taal projecteurs yi ba mu nekk euh, euh, ba mu nekk euh, loo xamante ni nii jeunesse bi apprécier nañ ko bu baax a baax mais am nañu ambition si at yii di ñëw Tivaouane bu ñuy football ñu football ci gazon. am nañu ambition defi piste d'athlétisme ak ay terrain multi multi sport loolu di maa ngi ci am na ay partenaires yu ñu ciy waxtaanal ñu ciy waxtaanal le daaw mais aussi dinaa ci ànd ak président conseil départemental ànd ci ak tous les députés notamment le député Cheikh Tidiane Diouf le

lii mu def ko ci esplanade des mosquées lii mu def ko ci fukki kilomètre juróom benn yoo xam ne tabax na ko fi Tivaouane mi ngi nekk en chantier bu bees ñu ko fiy tabax fi nekkoon mairie dañu lakkoon ko ñu ngi fay defal bi centre socio collectif ku ne xam nañ war nañu am abattoir moderne ak yeneen ak yeneen yoo xam ne su ma ko doon lim tey jii du fi du fi jóge loolu yëpp nag su président di dóor ci côté boobu ñun tam war nañu boole suñu doole ñu ñu ànd ci wàllu politique jàppale ko ba su defee fukk même suñu doole si doole si benn ñu def ko ànd bi nag yaakaar naan dina ko gën a yombal te bala muy yàgg nit ñi gis suñu doole xëy na barewul trop sur le plan financier waaye jëm nañ luy toll si euh, ko daaw yokkaat nañ ko ren te ñu ngi ñaan aussi bu déwénee ni ñu yokkale ASC yokkal zone yàlla mayaat ñu kattan ba ñu ba mu gën a yaatu loolu la ñuy tey nag fête bi xëy na ñaari équipe ñoom ñooy final mais ci récompense yi boole nañ ci les 37 ASC yi nga xam ne yëpp bokk nañ ko commune bi ku su nekk lu mu néew néew dina am lu ñu mais ren aussi dañu décider ay nit yoo xam ne dañ fi nekkoon nekkal fi Tivaouane sur le plan sportif wala ñoo xamante ni ay icône lañ ci dëkk bi dinañ leen lim ci kanam ñu jox leen ay cadeau jox leen ay diplôme de reconnaissance parce que ku liggéeyal Tivaouane ba jóge fi sa njaboot war nañ xam ni reconnaissance boobu am nañ ko jëme ko ci yow yooyu yëpp kanam dinañ ci ñëw jox leen ay récompense jox leen ay diplôme de reconnaissance yoo xamante ni si turu population Tivaouane la leen ko maire bi jox ngir li nga xam ni taxaw nañ ko